opération Samu suñu Karangé, bi police bu Touba don amal mu melni ki am nañ ci résultat bu jéggi dayo lu toll ci weer rek teg nañu loxo lu toll ci nit ak fanwer ak ñent def ci bisub opération suñu Karangé 1 don tëjtal gi commissaire spécial bu Touba andi ci ay passé le 20 février le 20 janvier 2020 directeur sécurité publique ñëwoon na fi def lancement opération sàmm suñu karangé 1 parce que dafa amone ay xew-xew yu amone fi ci Touba ak Mbacké ay actes de banditisme donc pour ñu jël euh, la sécurité des personnes euh, en charge mu ñëwoon def lancement bobu le 20 plan bobu nak un mois le duré won tay lañu tollu ci njeexintal bu njëkk njeexintal bi moo ñu leen di jox résultat yi ni résultat yi ni la tëddee japp nañ junniy junniy nit ak junne nit ak fanweer ak juróom-ñeent bi ñu defee opération yëpp ci weer ci weer bi yëpp junne nit ak fanweer ak juróom-ñeenti nit la ñu interpellé ci biir ñooñu juróom juróom-ñaar téeméer ak ñeent fukk ak benn nit pour vérification d'identité lañ leen jàppe fukk ak juróom-ñett yi pour maanaam ñi yor sineebar yàmba ak li ak xeet yi ak xeet yooyu ñaar fukki ak ñaari pour vagabondage ñi nga xam ne kenn xamuñ fu ñu dëkk ay vagabond lañ dañuy ñëw di squatter di nekk ci boru marché yi wala boru jumaa ji kenn xamul fu ñu dëkk kenn xamul fu ñu jógee 92 pour ivresse euh, kii juróom ñeent fukk ak ñaar pour ñi màndi di tërëf ci mbedd bi di tëdd ci mbedd bi fukk ak juróom-ñett yi nga xam ne pour ci euh, faune euh, diluant si neebar faune faune faune diluant quinze pour quinze waaw quinze mooy moo bi donc jàpp nañ fi ña nga xam ne tamit dañ doon sàcc ay ay ay ay ay ay ay gàtt ñu retrouver ci ñoom juróom-ñeenti gàtt ci drogue bi jàpp nañ euh, juróom-ñeenti kilo ak ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom gramme ya nga xam ne ci si neebar lañ ko jàpp ak cornet lu tolloog juróom fukk ñaar cornet ak juróom fukk ak ñaar ci cornet ak 6 juin maanaam li ñuy ràbb noonu di ko tux 6 juin donc ci gàtt yi jur yi ñu euh, gis ci sàcc yi toll na ci juróom-ñetti euh, jur ci bande yi ñi nga xam ne nag euh, moom la ñu démantelé maanaam ñi nga xam ne dañoo lëkkaloo di def ay naka su ci kër yi di sàcc ak yooyu euh, démantelé nañ ci am nañ ci ñaari bande yu ciy jàpp benn bande bi ay ay xale la yu yu toll ci ay fukki at ak juróom fukki at ak juróom-ñeent juróom-benn xale lañ ci jàpp ñi nga xam ne dañ leen jàppee association de malfaiteurs maanaam dañoo lëkkaloo di dugg ci kër yi di sàcc ay téléphone di sàcc ay écran plat ci attaque bi amoon tamit ci euh, Eltonu Mbàkke bi euh, ki nga xam ne moom nañ yaakaar ne moom mooy jiite woon bande bi euh, mujjoon nañ ko teg loxo commissaire u Mbàkke def na ci liggéey bu mucc ayib tegoon nañ ko loxo ba ci enquête bi sax gis nañ ne ci fan yi ci gannaaw bokkoon na ci ñu benn bande bu sàccoon benn oto ci biir Mbàkke foofu barkaat démb tamit commissaire wu guy mbind jàpp na ceeb ba nga xam ne kiiwul

ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom ci ay pièces yu ñu jàpp oto yi nga xam ne euh, amuñu këyit wala nekkuñu ci yoon ñu té ñu téye leen ci commissariat bi toll na ci ñaar euh, ñaar téeméer ak ñaar fukk ak ñeent oto yi nga xam ne def nañ mise en fourrière moto yi jàpp nañ ci juróom-benn téeméer ak fukk ak ñi ak juróom-benn moto yi nga xam ne immobilisé nañ leen. donc loolu mooy résultat yu ñu yu ñu yu ñu yu ñu def ci weer bi maintenant pour li nga xam ne mooy moom la ñu dëgmal kanam mooy perspective yi euh, jàpp nañ ne euh, opération sàmm suñ kaaraange bi am ci am ci satisfaction ba tax dañuy directeur dafa ñëw tey pour lancer euh, deuxième phase bi buy commencer samedi ba le 20 avril donc ci ñaari weer lañ koy def deuxième phase bi suñ ci àggee tamit dañ leen owaat ngeen ñëw ñu wax leen résultat yi ci am ñàkk kaaraange gi am ci dëkk bu sell bi di Touba ñoom kat ñoo ngay xamle ne lu ñu mel moom wàññeeku na bu baax baax ba loolu moo waral ñuy lancé waat seen deuxième opération bi di sàmm suñu kaaraange 2 mu ci ñaari ci Touba ak Mbacké. ci ak santam ñu ngi ci tur ministre de l'intérieur avec le directeur général de la police nationale le euh, directeur de la sécurité publique ba m'a ni Dans la euh, déclaration du commissaire spécial Touba le résultat que que Karangé ci Touba ak liko wër alhamdulilah mu ngi ndank pour nous, que la situation est calme et maîtrisée ci ministre de l'intérieur le directeur général de la police nationale le directeur de la sécurité publique mangi lancé officiellement l'opération Sam Sun Karangé 2 ba xamé ni day durer ñaari bu passé bi ben mais bi ñaar

ñu continuer di di nek ci terrain bi di saytu bép ñaawteef bi nga xamee ni euh, mu ngi bugg euh, laal population yi wal wal wal dëkk yi wal dëkk bi donc euh, euh nañu continuer liguey bu am solo bo ba xamé ni commencé na indi ay résultats yu woor ma ngi leen di gërëm di leen sante